salaamaaleykum suñu mbokk internet Dakar Net ginnaaw bu ñu leen nuyoo les ministres de l'info ngeen ci ànd ak Ousan dañu koy ubbee ak ki nga xamante ni moom mooy Yakham Mbaye yàq lu mel ni xamee ministère euh, des affaires étrangères ki ko jiitee ki nga xamante ni moom mooy Aïssata Tall Sall moom nee na d'accordul ci li ay Aïssata Tall Sall wax nee na waxu picc la ñu fàttali leen ni moom ministre bi dafa waxoon ni euh, yoon dafay def liggéeyam ndax séparation des pouvoirs la ñu wax waaye nag yoon ñu bëree bëri ci sénégalais yi mënuñu koo d'accord rawatina ki nga xamante ni ni moom mooy Yakham Mbaye ndax nee na moom mënul d'accord ni ki nga xamante ni moom mooy ak kilifa bu Y'en a ak ki nga xamante ni moom mooy Simon euh, ni ñu leen daal di yóbbee di leen enquête ba sax tee leen nee na yoon may na tamit ñaari député yooyu ñu daal leen di woo enquête leen euh, daal di wax ak ñoom ndax seen immunité parlementaire naam mi ngi seen loxo waaye yoon terewul dafa war a def liggéeyam ci mbir moomu euh, ñu war a bàyyi li ñuy taafantaloo du lenn lu dul ay li nga xamante ni moom mooy yoon mi ngi def liggéeyam xamante ni moom mooy état bu Sénégal loolu lay traité mbiri député yi euh, bu ñu fa jugee dañuy dem fi nga xamante ni moom mooy poste caaro yi mbir mu doy waar fa am benn oto moo saaraan daal di mbëkk benn xale bu jigéen euh, bu doon jaay ndékki xale bu jigéen ma dafa génn àddina ci tàng-tàng bi beneen nit bi nga xamante ni daal dina koy gaañ moom jamono ji ñuy wax yéen ma nga ca bërëbu euh, sawataas yi bu ñu fa jugee dañu koy daaneele ak nga xamante moom mooy yaawu jaal xam ngeen ni démb démb am na làmb bu amoon fi nga xamante ni moom mooy arène national arène nationale lamb jafa amoon xam ngeen ni Laurent Ndiago bilam borom bilaay yow moo daal di daan ki nga xamante ni moom mooy booy Plateau waaye li nga xamante ni moom mooy fee bi sénégalais yu bëree bëri gis si vidéo yi di ko sax partagé mooy yaaw jaal bi nga xamante ni da doon dëkkul liiru jaan dëkk yu metti ba sax mel na lu koy waaj dóor waaye yaaw jaal nee na liiru jaan da koo matt di combat boo xamante ni xam naa ne du ñàkk promoteur yi dinañ ko dox ndax yaaw jaal nee nañ ko maa la palmarès doo dara ba liiru jaan bëgg a simmi li nga xamante ni moom mooy xaftaanam ngir jàmmaarloo ak moom sumu ngir jàmmaarloo ak moom wéy leen di amoon seen site d'information bii di Dakarnet dara du leen rëcc ci réew